bu ñu nee seetlu am la gëm naa ko ndax jëmb ji ma jàkkaar lool di Serigne Mara Latif vendredi le 9 février la ñu jàpp daje boobee foofee ca place de la nation Serigne bi dama daje boobee gis naa ci lu ci doy waar alerte ba alerté kii di njiitu réew mi di président Macky Sall ak gouvernement wam Serigne bi ma foofu de ne ma jamono bi sëy li muy tas bëri na lool ba tax ma dinaa joxe secret boo xamante ne ku ko def sa jëkkër wala sa jabar du la bàyyi ndax dina wax ba wax ci candidature Amadou Ba bi nga xamante ne jamono bii lëndëm na lool ba ci kii nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye sëriñ bi lan la gis ci moom ak mbiru Ousmane Sonko ay nouvelles yu mu fas yéene def laataa loolu lañ koy daal di bàyyi mu nuyu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah Didier ñoo ngi lay nuyu baax te di la ziar euh, te di wax euh, réew mi yàgg naa la wax ni réew mi mi ngi ci. jamono ji dafa nekk ci guddi yu lëndëm mm-hmm. loolu laay delloo di wax mm-hmm. réew mi jamono ji mu taxawee nii mm-hmm. euh, aaja na ay sarax wallaay ndax gis naa ci lu yéeme waaye ginnaaw loolu damay wax salaamaaleykum wa rahmatullah di wax rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul xaqdatan min lisaani yafqahu qawli di ñaan yàlla yàlla yàlla delloo def jàmm ci réew mi ci réew yi ko wër amin amin yal na yàlla sàmm mbokk yi mbokk yi nekk ci biir réew mi yëpp rek ak suñu mbokk yi nga xamante ne nii itam ñu ngi ci yeneen réew nekk ci ay jafe-jafe euh, sëñ bi euh, nuyoo yi am na solo lool waaye duñ fi ñëw ba ñibbi te duñ la laaj lan ma waraloon sa gis-gisam ndax toog nañ ko tolloog fukki fan kenn gisu la tey ji nga génn ma woola jot la nga ne ma duggoon xawlatu li ko waraloon nag du dara dul gëstu réew bi ah. li nga gis ci réew bi nag bëri na lool ci ah. candidature Amadou Ba ah. ci Diomaye Faye ba ci Ousmane Sonko coow li ñu naan nag kii nga xamante ne Amadou Ba dañ koy sacrifier Bassirou Diomaye Faye du bokk ci élection yi nga xamante ne mën am ci décembre loolu lépp dinañ ci waxtaan waaye laataa ngi wax ci loolu dama lay dama ñëw fi te du ma laaj ci wàllum seet sëñ bi sa digganteeg seet lan la lan moo waraloon koo seet gis ko koo seet wax ko loo xamante ne mus nit mosu ko wax lan war a loolu euh, alhamdulilah loolu lépp lu ko waral mooy jàng mu yàgg mm-hmm. ak euh, tarbiyo bu yàgg mm-hmm. moo waral loolu lépp ndax olof dañ ni loo xaarul du la fa fekk dëgg la euh, xëy na ci loolu la ñu yàlla dimbalee mm-hmm. euh, ba tax na ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax loolu nekkul loo xamante ni dañ koy nama wala leneen lépp loo am rek suñu borom subhanahu wa taala la ndax moo jël mbir def ko ci jaamam te kenn du ci mën dara mën na fekk benn waay def ko defal def def ci moom loo xamante ne nii kawe ne njortam te kenn du ci mën dara kon dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax di wax alhamdulilah rabbil alamin waaye dama lay wax nii mm-hmm. euh, jamono ji ci fi réew mi toll mm-hmm. euh, euh, yéeme gi day waar gi foo ko waaye mën a takk mm-hmm. dana ko weesu wallahi ci diggante candidat yi nga xamante yooyu nga wax ak ba ci ay Karim ak ba ci ay Bassirou Diomaye Faye ak yi demee noonu ak Amadou Ba waaye li am daal mooy Euh, képp koo xamante nii man nga génn xar mu ñuul def ko sarax. xar waaw. ci candidat yi ci déet ci candidat ba ci ku xam xamante ni bëgg nga jàmm ci réew mi rek. Hmm. ko def. maanaam aajo ku ci nekk génn benn xar bu ñuul saraxe ndax maanaam réew mi dafa taxaw fi mu doon taxawaay boo xamante ne nii yaa ngi naan ma géej ngaa génn waa géej na maa génn. Hmm. waaye li ma gis wax dëgg yàlla daf ma tiital. te itam ndax euh, gis naa ci ay. ay ay jigéen yu yu sonn gis naa ci ay xale yi itam yu sonn xëy na li ci des na duma ko wax waaye gis naa ci ay jafe-jafe yoo xamante ne nii mhm. euh, mën na am ci réew mi te ñaan ñu ko yàlla mhm. kon képp ko xamante ne mën nga génn ko def rek te yàlla tax te itam na nga ko def ngir solo réew mi ma mhm. euh, moom moo di benn ndaje ñi naan ndaje bi dina am ñi naan ndaje bi du am ñi naan ndaje bi même bu amee bakkan yi yor dina bëri ndax ndax sa xawlatu boobu nga duggoon gis nga ci gis nga ci ndaje ndaje bi ñu nar am vendredi bi euh, ndaje mi mm-hmm. eh, danañ ñaan yàlla rek mm-hmm. luy mën a am rek mm-hmm. jàmm wax jàmm waaye li ma la wax rek moo xam ci ndaje mi moo xamul ci ndaje mi waaye réew mi jamono ji may wax ak yow nii dijë eh, Euh, doy na waar daal. Mm-hmm. wallaahi lazim. parce que da euh, def lu kenn mës a def. Mm-hmm. maanaam dugg xawlatu te kenn mm-hmm. fayu la kenn fayu la nga dugg génn wax say sara. man lu may ma a loolu maanaam di faj aajo jaabi. tey jii ci kat ba nañ la ko di dégg ak léegi. te boobaa di seetal nit ñi. di leen wax ñuy gis. di wax dara te lépp looy def koy def ci alxuraanul karim. aada ak sunna maanaam sa diggante xawlatu. ndax nit dina nekk ci réew mi. nga dugal ko wala nit ki bu ma ci nekk boo ko duggee xawlatu day dem. waaw loolu dañuy sant yàlla rek xëy na ci nammeelu yàlla la rek mm. man moom damay dama jàpp ne samay mbir rek lépp lu am rek mm. euh, dama koy wekk ci suñu borom ndax mm-hmm. amaana mën nga dugg xalwa doo gis dara mm-hmm. amaana mën nga dugg xalwa ay toog ci ay fana fan ay fani fan sax du la li nga bëgg gis doo ko gis mm-hmm. waaye loolu lépp daal man li man ci mën a wax daal dañuy sant yàlla rek lépp dañ koy delloo ci loxo suñu borom subhaanahu wa taala ndax lépp lu am mooma